papi papay Marie Le Pen góor gii toog ni doom ji mel moom noonu la meloon mais nañ leen di nga nekk xale bon màgg baax mun ngaa nekk xale baax màgg bon mun ngaa nekk tamit xale bon màgg baax yàlla mooy changé nit moom na kenn gënu koon bon moom mii toog nii moom mii mooy jow boppam kenn gënu koon bon waaye dem na ba dem na xam ne àdduna nit ku ñuul ak nit ku weex war nañ mën a dëkk mu changé ba doom ji nag di ko diingat ci parti bi ba nangu parti bi ci loxo nañu seeti baay ji nga xam ne moom moo jur fi jaaroon démb di Marie Le Pen kii nag mooy Jean moo jiitu Marie Le Pen nañ seeti papay mari Le Pen Jean-Marie Le Pen mu ngi Jean-Marie mu ngi ñëw merci merci. Oui, j'arrive. J'arrive. Jean-Marie. Euh, Marie Le Pen. Jean-Marie. Euh, Jean-Marie. Euh, Jean-Marie. مخي bonjour, je vous demande bonjour. Je suis content. De tout, le monde, je suis content. Et je dis bonjour tout le monde. Je suis devenu vieux, je pense que ce sont ans et quelques. mais ma fille elle s'appelle Marie Bonnepeine ah Marie Bonnepeine elle est mauvaise c'est ma fille mhm. je suis son père mhm. elle est devenue grande et elle a voulu prendre le parti mhm. je dis non on tribunal est-ce qu'une fille doit amener son père au tribunal c'est pas normal on n'est même plus dans la même maison Elle vient seulement voir ses parents. Euh, euh, il a dit, il a choses sur les Africains, c'est pas bon. C'est pas du tout normal. man euh, ma jox jigéen bu bon bi fii ñëwoon démba di xas nit ñu yi. maa ko jiite woon maa gënoon bon ñëpp. waaye ma màgg démba am jàngoro. yoo xam bi yëpp day métti. docteur yi sax dañ wax ni deel doxantu sa sa yi wàcc te ki faj nit ku ñuul la mu ngi dëkk Mali fii la juddoo mi moom faj way ki faj kii mooy bëgg nga dund man bëggu moon ku ñuul waaye bi ma di ba màggee nit ku ñuul moo faj ba ma mën faju Marie moo bon Marie wax na toog ci télé àdduna ñëpp di ko wax mu ne France yàqu na équipe France africain ñoo fa nekk loolu ko bon moo kuy wax man bàyyam daan ko wax waaye dama dem ba àddina dox ma xam jaru ko Marie ko yées la li muy wax ci jigéen africain yi dañuy jox loolu ji nit ku baax du ko wax parce que lii diine diine chrétien yi dafa wax ni nañu partager solidarité yërmande te comprendre di ci suñu biir lu tax mu bon man damay laaj Marie fa fa la jëlee bon bi astafurlah ci man la ko jëlee waaye lu tax mu gën bon man ni man mi bonoon eh, koo xam ni bu ko gis nit ku ñuul problème yi en France kan moo indi bu waxee ne nit ñu ñuul yi nañu génn léegi ñu ñuul yi dañuy mer ñoom def ay attentat France yàqu soo bëggee dara da ngay naxante ba toog nga def li waaye yow toogagoo nga ne suma toogee ñëpp di ne ñu génn kon yàlla du wax yow nga toog man man mag la wératuma li ma bonoon yëpp maa ngi koy rëccu soxor naa woon tàng mbaq yooyu yëpp bay na ko léegi mbaq bu sedd la yor ba pare baax mhm. mari moo bon mari moo yées mari mooy jéeg boo bon yéen waa Sénégal ak jigéenu malien yi il faut jamais jamais jamais euh, quand vous priez le soir il faut prier à Dieu que mari mort na dee na mari dee yéen yi man suma sante yàlla yéen lay sant fii laa dëkk avenue Pontoise quatre-vingt-quinzième mais saa yu leen toggee mbaxalu soos da ngeen may yàqal ak puuj paaj da ngeen may yàqal ak ritax mu jàlli ak dëxin xàcc bu ànd li moom ne ko ci pàcc mu xeeñ loo neex kon yéen yéen a ma faj lu tax muy wax seen sëppu kanji di am ay butit lu ñun ñoo gën le lekk lu bon tubaab yi dañu lekk y a des tubaab qui le le le jinax te mm-hmm. kenn waxu ko donc léegi dama bëgg yéen africain il faut leen mari ko mu ngeen taasul ko lii mu xam ko kooku mari mari mari Marie bi lay Marie bon Marie Le Pen bon elle est mauvaise elle est elle est elle est mauvaise kan moo bon mais kan moo bon mais yow kan moo bon kan moo bokk bon kan moo yées Mais qui est mauvaise Marie, mauvaise Mais, mais, mais, mais, mais, mais, bon yaa bokk bon Marie Oui, oui, oui.